di wax na ci tey convergence taxawu yi mag ñi euh, jëg nan euh, dem ba ci procureur de la république ñu déposé waat seen plainte pour Ousmane Ba moom ma nekk ba Gabon di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci suñ kilifa yooyu suñ borom suñ borom suñ borom pas-pas yi euh, du suñu pas-pas muy ku mel ne Cheikh Omar Fouti Tall ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ne maam Alaaji Malick maam bu Kunta maam Limaamu maam Ahmadou Ndak Seck Euh, ak euh, maam jigéen bu Thiès euh, ak mboolem famille religieuse bu Cheikh ba Cheikhul Islam ak mboolem famille religieuse yi nekk ci Sénégal mu yëkkate ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci ñoom convergence bi nag juddu ci wax ne mboolem mag ñooñu nga xam ne tey bu réew mi amee jàmm gannaaw yàlla ñoom la mag ñooñu tey bu réew mi demee ba am ay xéewal seenu ñaan la ah, loolu lañ wax ne duutu ñu may kenn yëkkate ay kàddu Euh, di yëkkati kàddu yu ñaaw di ko teg ci seen kaw der yi di wax na it ñoom lépp lu ñu waroon a def def nañ ko lépp lu ñu waroon a doxal ci réew mi fu tubaab bi taal ab taal taxaw nañ fa maasale ka yëkkati fa kàddu lislaam def fa ay muxaadim def fa ay seex kon ñooñu am nan leneen lu meritool ñu defal leen ay patrimoine yoo xam ne nii war nañ leen a mën a defal article boo xam ne nii képp ku yëkkati kàddu wax leen lu du noonu foo mën a nekk yoon war la ma fa mën a fekk loolu nag tax na tey Ousmane Ba euh, bi mu ko defee au niveau du Gabon kilifa diini ya fa nekk den ay imaam ak ay taalibe ak boroom ay ONC ñoom ñëpp maase nañ ànd taxaw ba ban arrêté Ousmane Ba ca Gabon li ca des tamit ñu jokkoo ak ñoom wax ak ñoom ba liggéey boobu mu ngi continuer tey fii ci Sénégal it ñu xëyaat tey déposé waat suñ plainte bëgg gouvernement bi ñu jàppale ñu ñu mën koo indi ci jàmm ñi ngi leen di sant nag bu baax di leen xool seen taxawaay ñoom it ci jàppale googu nga xam ne ñu ngi ñu koy def ñun xam nan ñoom xam nan kon loolu it convergence bi mi ngi leen ci sant mi ngi leen ci gërëm waaye di leen demandé waat encore ñu indi ko ci réew mi bu indee ko ci réew mi siisi ko la ci yoon war a def mu def ko looloo taxoon tey ñu dem déposé waat suñu plainte yeesalaat ko ci procureur de la république wax na it ne lii dañ cee koo war a saafara ndax amuñu lu dul suñ mag ñooñu tey jàmm ji bu amee ci réew mi ñoom la suñ mag yooyu liggéey nañ ci réew mi loo xam ne war nañ leen mën a protéger kon tey bis buñ bàyyi lii jàll bu ëllëgatee keneen dana ko def mën nañu wax ne ci doomi Sénégal sax ay saaga sax dafa doon loo xam ne dañ koo war a doon loo xam ne ñun ci suñ jëmmi boppam ci leen war a taxaw ba aar ko ba nga xam ne lépp war nañ koo mën a waxan defante ba mu egg ci ay saaga kon yooyu it dañ koy ñaawlu ci ñëpp kon ba tax na convergence bi jëg na taxaw na fas yéene état bi jàppale gi leen jàppale ci ñu xam ne ñu ngi ñu jàppale ci liggéey boobu it ñi ngi leen ciy sant bu baax ñu ngi leen ciy gërëm waaye bu ñu ci jàppale ba indi ko nañ ñu jàppale it ba nga xam ne la ci yoon war a def def def ko déposé nañ plainte bi rek incha allah ñu ngi koy xaar ñu indi ñu ko ci Sénégal lépp lu ci yoon war a def it ñu def ko ndax loolu dana tax keneen ku nekk ci meneen réew di ko def bu soobee yàlla buñ ko jëf bu fekkee moom mi ko def gënoon cee ñaaw ay wax lu mel noonu am na keneen ku nekkat ci mën a réew di ko def danga bàyyi xel ne li ko arrivé mën na laa arrivé ba tax réew mi ci ñoom loolu ñuy def li feeg ñi ngi koy def réew mi du nekk ci stabilité ca fii ñu toll pétrole la ngi fi feeñ ak ak gaz ak yeneen ak yeneen ay nit ñoo xam ne ay lubi lan yëkkati ay kàddu ak fu ne ñu jëm fa di lonk ci ñu mel noonu pour réew mi ñu ne loolu nag kenn duñ ko taxaw di ko seetaan réew mi di tàkk ndax maam yi ñaan yi nga xam ne ñaan nañ ko fi te ñun am na ñeneen ñu ni jàkkaar lool ñooñu yaakaar naa tey ñooy suñu nit ñi nga xam ne ñoo jëkk ngir maasale liggéey yi nga xam ne moom la maam yi defoon yaakaar naa ñun ahlu tariixa buñ am na ñeneen ñun war a jàkkaar lool ñu dul ñun ci suñu biir kon képp ku ci yëkkati ay kàddu ci fan yi am noo waxee kooku it ñi ngi koy ñaawlu kaddu yooyu Ahmed Khalifa wax ñi ngi koy ñaawlu ndax ab livre bu fekkee nit da caa juum nan wax ak ka nga xam ne moo bind livre ba yem ca ca bañ a egg ba ci sun maam yooyu nga xam ne benn lan woon seen lépp ñoo ko defoon muy benn ndax lislaam a taxoon ñuy jëg kon it livre boobu ñi nga wax ne maanaam pour defar euh, boole histoire Sénégal histoire du Sénégal nag bu demee ba bëgg a xàjjale Sénégalais yi jàpp naa nit livre boobu it nañ ko jàngataat seetaat ko état bi jël ci engagement yi mu ci war a jël. Thank you.